Laissez-vous tenter par le goût unique et authentique de la mayonnaise Jadida. Jadida, la mayonnaise généreuse et racinée. Je m'appelle Yaa Fatou et je suis la maman d'une famille de grands gourmands. À l'heure du marché, ils m'ont surpris avec une ambiance incroyable. Et c'est pourquoi j'ai fait un tour chez Mertiaba qui m'a confié 40 ans de savoir-faire culinaire qui se résume à la gamme Kadi. Dès que j'ai émietté mon bouillon caddie dans la marmite, comme Mère me l'a dit, les Ndoyen ont tout de suite apprécié. Quelle bonne odeur et quel goût qui font la joie de toute ma famille. Gamkadi, bonjour l'appétit. Aïe Salon en tissu, Aïe Salon en velours, tout bas ameublement. Nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons. Jaria Création, Lampe Business Couture, Reflet d'ébène, Mbake Kadjor Koutur, Kerserin Salyo Kadeji Style Umusana Fashion Maktoum Koni Style ngeen ah sama jëkkër yi sañse nañu yaay booy waaw Fall yàlla na yàlla may taw féex ak wërle amin Fall amin Fall may la fan yu gudd ba nga fekkee seen yërëm sët ak sëtaat amin Fall amin amin Fall yow tamit ah, bal ma àq baal naa la ni yàlla boole baal tu teewee ko ay déwén yu bëree bëri oyofal la téeñ bi nga yenoo njaboot gi ba mu oyof te nga sut sa baay ba fan ah xale yéen tamit baal leen ma àq ah xam ngeen ne rek diggante sët ak maam ah, du ñàkk ay rëcc rëcc waaye xam ngeen yéen seen xarit laa du dëkk baal ma àq bu baax. baal nañu mhm. maam booy. Ah. baal naa naa leen. si eh. naa la baal naa naa la Fall na nga sut sa turandoo fan nga dund. amiin ba yàlla defal la nga nekk mag. magul islaam defal ko tamit yéen ñi. pare. Hmm? bi lay faal tey tey sama xol xam naa ne bisu mbégte la waaye sama xol dafa tooy nag bu ma la gisee ak sa baay comme xaritu sa baay bu ñëwaan nii lay def tey danga damaa sama néeg rek sama sama naaw wi ne res. maam tamit nag. yaay mbégte la. sama xol bi moo sori sama xol bee tooy. bàyyi leen jooy yi nag ah bàyyi xel bi rek moo di jooy ay lii yépp bëgguma ko woon noppi leen. man leen may sama sa bàyyi leen. ba sama xol rek sama xol a tooy. gis nga seen maam dafa baaxoon bëgg njaboot te seen papa loolu laay gis ci moom lii seen maam mooy reflété ci moom. may ñaanal ko yàlla xare ko àjjana. amiin Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maamam teeru ko. ci biir àjjana yu kawe ya. macha allah Fall jërëjëf Fall. teral nga ma yal na la yàlla teral sagal nga ma yal la yàlla sagal. yéen itam yal na ngeen nekk mag magul islam. sa xar bi ñoo koy fees. Hmm? xar bi ñoo koy fees. ah xar bi ñoo ko fees. Hmm. man maa koy fees. waaw lu mu nekk góor ba pare bëgg kaa hmm. koy def. waaw koy ah mais nag gis nga nit du weer sa moromu nawle. dégg nga defagu ko nga bàyyi rek ba sa papa mi bu soobee yàlla bu ñu jógee ci yii dina ci jub. mi ah, ah, mm-hmm. ah, ngi dem rëy xam nga. na dama bëgg xaas de. defar naa paaka yaa ngi foofu defar naa paaka yi mi foofu ci biir waaw. pare naa sa ndéwénal nag la woon foo woon rek. baa di kontaan rek. little wife. Huh? ودفني ما خلاتك Vai, eu vou levar. Ela sabe, ó. Iyala mi boko de jag nga xam crash toto mata am ma ci bétéran nga jóge yow loo sol ni mayo wala kilot eh xam nga lu xamal man duma seen morom yéen a ngi may dégg yéen leen ñaxar nii mel ni mbaam xanaa mi sax ñaxaratu lii ba koy def judduwu leen tund wi yëpp képp koo xamante ne tabaski jot nañ nga sama xar man yow xam sa am fit yow Matas ku la bàyyi nga ne da ngay rendi xaat ay eh, Matas ki ta les. xoolal ma dimbali sa zone bu saf bi kat oh, ki les man ay eh, bu ma fontoo waay. waaye yow Matas loo bokk ak Thiam gaynde. Thiam man. mu équipe nationale. waaw man mooy yéen la ma seen problème fi mu toll nii. waaye yow xanaa da ngay dem fee stade Abdoulaye Wade. xoolal nga lu mu doon man ma fenn laa wax. ñeme nga ak sa sa maillot bii de. waaw yow yow lan mooy sa problème. xoolal xoolal nga doon maillot Congo man dama fay ñëw pour defar xar yi. ah tey man mi sax damay rey xar. Eh, ah. dimbale ñu nag may ñu jàmm. Ah. yow bu tu indi problème. yow un nga ne fii un la jox nga ah mam booy yan dossier warul génn yan dossier warul de. dama ne xoolal bu ñu indi problème am sensible nga yow. xoolal xaw dossier xaw ma conteneur xam nga lu ma bëgg jëlal bi te fekk ma ci eh ne. tonton ah eh man maa xam yow ya, nga xam ne dugg góor sa eh, néegu ah, góor. sutura sutura ah, sama yu néew ci xur kenn. Fadel Fadel yow laay waxal na nga moytu paaka yi ak deret ji yow nga xam ne boo gisee deret da ngay xam ne laajang indil ma problème te dañuy feetu tey. sa jëkkër gi dafa lëj ne la xaar ba mu nekkee xale ba tey lii la nekkee ak man kaay ah. yow. Eh. ana wéyal mbéyte guy gu saxul laa la man maay mag moo xam damay bëgg damay bëgg xolu xale dama koy riit ba def si Chavez ba Bula donyo nanko Wa yentin iya, jongo manang la iya, Ye li duma ko la dama ko raga Seen marinière yi rafet na c'est très joli Wa Fatima yaa ngi jongo ma ni Je baax na te jàpp na la Tu es toute belle chérie Ah mi bal leen ma àq nag bal naa leen yàlla boole ñu jéggal ñu teewee ay at yu ya, baaree bari njaboot gi yàlla def ci barke guddal seen fan

xaaral ma ñëw jàpp leen léegi ñu pare incha allah génn fi ah. non non c'est bon c'est bon merci on a presque fini tu peux disposer ñun ñu baax de nga dem. Mm, on se voit tout à l'heure. d'accord chérie. kon ba ci kanam. yéen tamit. gis nga yow presque daanaka. ñàkk ngeen kese de. laajuma en tout cas je me mel du man lay waxal est-ce que yow lay waxal. je me demande est-ce que maa la jur sax juroo ko kii xam ya nga ne kii juruma hmm. ko ndiriwuma ci dara ubbi ma fuur bi Diara. Tá, Marisa, amarra ela. Merci beaucoup. cim sama jeg bi laahi jeg jam ak njariñ lay am nga sunu jam am nga sunu njariñ c'est dressage tay jii ah dan nga dan nga dan nga dan nga ma kontaan nga nga tay non seulement sañ sey rafet na togg fi lo xamanteni nak ma ra day taali tey askan wi ñepp kontaan <laughs> jaara ba kontaan nga yaay pas content, hein? <laughs> En tout cas, ma chère, pour ma part, impeccable, rien à dire. Non, mon seul rôle, 4 ans, sans tabasque qui est. Ma barre, si yo. Ma content, hein? hein? Si, si. <laughs> Oui, si. T'as bien mangé? Bien sûr. Bien sûr. Mm tu Chim, d'accord, je vais te dire, jaare lii xanaa région Burkina Faso eh bala nga lal ananas Burkina dak dama dama ne sama resu xar anamu yow ma taas bay ma moy lay laaj. xana du ya fess xari ma way may mam jom maam Diop na xam nga nak wax deug yalla do tok ba heure bi ñu lek ba nga ñu fundu lek na ba suñu xel dal ngay laaj fo wa wa man dum la am aw ma bali bali li <laughs> resu bali bali bali la ya, yaa yay re reel ba ke <coughs> mam boy musuma xam ne boo ni ngay mel. man dama ci dama ci duggal sama lox da ko gis yow. mam booy ki yeelu kum doon. xoolee xam ne la. eh. ha ah, mam booy yow mi ñàkk lo xam de. nga ni lii yéeli pël yow rek je vol. alaykum maaleykum salaam. ku doon laajte Fatou. Ngoye na ngeen def han ah? ana sama ñaari champion yi. gay indi na len pooju xar. pour yeen ku tabax si ngeen tabax si ku tabax ngeen tabax si ku lekk ngeen lekk ku lekkul ngeen lekk. luy boj papa lii mooy boj sa poot bii di ma sa porta rédo bi waaw yow de ko de. <laughs> yow papa yow en tant que ñun ñun nga ñuy jox ay pooj nga war ñoo jëndal moitié duñ jox ay pooj en tant que ñun trois petit papa Kia da ko na nga bu yeboo nga xam. ok ana Kia. dafa fër mi ngi ci kaw. mi ci kaw ba na len wala nak len leen yeen mom moy lol yeen ki nga xamni amul ben droit ci yeen ki nga xam daf len jass am pap yow li ngay wax rëy na de yamul ci kuddu ñu ref la ci gayat nak su yoon neewu ci njaay ak dina ko wax waaye dafa jàpp dina ko wax ki tank xaru bu jigéen la fi ni ki vaar lañ ko wara a ki dañ ko wara a yóbbu tax comme gorgu ñak jom la hmm. amul jom loolu lañ ko war a def ba pare may wax mu dem kër mbaarik rek fa ay yére di jóog jog di mel ni bu sobaali ak i maraakiis <laughs> c'est bien bon jaara <laughs> na nga def mais dangaa sañ ci sa vax si jàpp na la macha allah et puis sa toogaay jekk na oh. ay sama jëkkër mooy darmaan ko nag ñetti xar ñett ak am jom kenn du moom ci góor yu saf na de hmm.

saf na daal tey suñu jeg bee moo togg ma nga ne la togg jeg jàng ma njëriñ ñee kee nga xamante ne nii day togg ci a yekk ci bool yi xam nga lu mu doon man mbiram lii nga fi indi lii nga fi indi kenn xamul ay tànki ginaar la kenn xamul ay tànk bu tudd leer na ma den ko am ay nante la

là doon noir, je t'avais dit il fallait apprendre à temps avec de patience On naa la ku baax doucement mu ñëw mu ñëw ñu dem nga def nang bul def comme ak tànnaan ma yeneen yi eh, ça va ça va bien qu'est-ce que tu fais là euh, Mamboy m'a invité pour m'assister faire B. Mamboy avec sa valise waaw aéroport laa est juste ni vie. fii Fini fanaan. Ouais, pourquoi pas. Hmm. Attends, qu'est-ce qu'on s'était dit? là? waaleykum salaam. macha allah kontaan naa ci yéen bu baax seen teewaay. Mhm. xayaat gi neex na ma leen di baalu àq nag ci bisu tabaski bi di sàqu yéen ñëpp ngeen baal ma àq. baal naa la baal naa la maam baal ah, dañu am nag gan gu màgg gu ñëw fii tay jii te Assane la tudd. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam Maman, mon ami d'enfance la je mhm. Azna ñoo bokkoon limite. bu D'accord. allah. il mhm. aéroport deful fenn fudul kër la oncle <laughs> bienvenu. merci beaucoup. Mhm. sois le bienvenu. alaikum.

waa mbooloo mi Assane mi ngi noonu damaa bëgg nga jóg nag demal toog fee ca wetam dégg nga mm-hmm. ami Sara xajal ko jaay laalo fa cere joñore waaw kay jërëjëf de bu xew mi yàq moom bu ko yàq de lan jooy mbokk yi lii nag ñu def xayaat am ci koo xamante ni moom la ñu woo xale bii nga xamante ne nii moo moo moo njëppoota kër kër kër kilifa diine yi di waykat bu mag Serigne Bamba Seck dundal nga diina ji buur gi nar nar la buur gi nar nar la buur gi nar nar la sunu yanen ba niigu ay salafa mani ba sama nekkoon ba tey ma nga fay daago ku wéddi xoolal ma nabi ay sama waaje daanaan waa maro di man lay wayal yéenay sama daanaan ku weddi xoolal ma